daa doon micro dañu may ah. micro deux photos rek. c'est bon dagg leen ko rek. micro.

déglu sëñ Bass di yëkkati kàddu yu gàtt rek di bàyyi ko ci moom ci Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko ñaanal ñu yàgg ci ànd ak muy loo xam ne da koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi la sëñ bi te mooy nga xam ne ay waaye di ko jëmee nag ci mboolem ñu bokkan lislaam yëpp ñu may yàq wala nasiihata min axiihil muslim di ko jëmee ci mboolem ñi nga xam ne noonu la bokk réew mi ñu bokk dëkk biir réew muy loo xam suñu sëriñ bi ñoom ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaan ñëpp itam ngir xam ne li nga xam ne wax àdduna sépp susu ñu ak ragal mbas ci biir àdduna def ci biir Sénégal xam ne moo ko teg nit ñi ndax loolu itam nañ xam ne na ma ko waxoon ci Alxuraan bi ci laa julli si yàlla wax na ci alxuraan ni eh, doomu aadama lépp lu ko def nga xam ne moo ko def boppam zaharal fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naas liyuziqahum ba'da llazii 'amiluu la'allahum yarji'uun kon fitna ji saa su ngeen gisee mooy balaa yàlla wàcc ko ci kaw àdduna rek suñ borom lu mu ci bëgg ci newutoon ci yoon dellu si waat delloo lépp yàlla ndax fi mu toll suñu kilifa bu baax daa wax Cheikh Saliou Mbacké yàlla suñu doon doon képp ku rek ko neex waaye bu la nga delluwaat ci moom kon loolu mooy li amaat ci lii luy jeexam ba di léegi am bi dafa lu ngeen kon nañ xam ne bu ko kenn ku ci ne na wéet dellu ci borom xam ne gëm ne lii ko dal lii am moom ci ëppam bokk na ci li ko ndax adduna naka jekk suñ borom saa su adduna masaan ak kii rek dana tegee natt moo xam ne da nga ko indi ndax natt yi dafa bëri xeet waaye loolu lépp itam bu ñu rek dellu ci yàlla sàkk sarax suñu borom mën na ko tege kon seen jigéen la di jëkk ci li wax rek mooy ne ñëpp dellu ci yàlla suñu borom wéetal ko tuubal ko. te jéglu ñaani tam lii nga xam ne mooy fitna mu tegg ba ngir àdduna si daaxul moom jullit ay ngànnaayam yëpp ci ñaar mooy ñaan ginnaaw bu loolu jàllee nag xam ngeen euh, jëf day gunge wax moo tax ci biir loolu nag suñ borom alxuraan ak euh, addina ak àllaaxira lu ci adda ci am lu ci santaane ndax wabtaxi fi ma aataaka llaahu daaral aaxirata wala tansa nasiibaka na dunya kon booy jaamu yàlla ngay jàmm yàlla ba mel ne dañ laa wax ne ëllëg ngay faatu ni ko ni koy faral di waxee waaye wala tansa nasiibaka mina dunya loolu mooy da ngay liggéeyal adduna ba mel ne da nga ciy sax faw kon adduna ak àllaaxira lu ci ne da ci am lu borom santaane Serigne Touba waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou ne leen. yaar rekk fi ne adduna ak àllaaxira mun na leen àllaaxira mbirum suñu borom la suñu borom la li mu soxla mooy ak yëg adduna nag mbirum adduna la kon lim laaj mooy yëgu kon li ngeen di dee ci yëgu ci loolu nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Sëriñ Tuubaa xam ne itam jullit yëpp ak njabootam ndax Sëriñ Tuubaa loolu la yéen te loolu la daa xam ne képp ku dëkk ci réew mi suñu borom moo la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 bi sab'in wa ishriina daraja naafile sax dañ lay wax ne am na nu muy demee nga wédde ko waaye bu fekkente ne boo ko defee nit ñi roy la ci nekk boobaa day nekk lu gën nga génn ko ci biti biir gi dañ ci ragal bi tam kon nag sëriñ bi euh, ngir xam ne état bi nga xam ne mooy état Sénégal euh, ñoo jaboote Sénégal gépp waaye moo itam mu xam responsabilité bi mu ci moo tax bi li tàbbee ci réew mi rek mu ne mu yëkkati ñaar téeméeri million euh, teg ko ci sama wax ne naaj jox ko président de la République bi nga xam ne mooy yilif réew mi teg ko ci loxoom ngir jàppalee ko réew mi ci xew-xew bi ci Sénégal bi bi bi ma ko waxee itam ma jokkoo ci moom mu rafetlu ko sant ci waxee ministère de la santé bi nga xam ne loolu am ñu teg ko ci seen loxo doon ci askan bi loolu nag bu ngeen gisee sëriñ bi def ko ñu war ko leeral dafa jox ndigal taalibe bi suñu tubaab yëpp nga xam ne suñu ne leen digal suñu leen tere na ko ci ñëpp roy kenn ku ci ne loo man ci dimbalee ko réew mi ndax xam ne diis na ne ci ñëpp jàpp képp ko xam ne mbokkum jullitam nga itam mu di leen laaj loo ci man nga def ko kon loolu sëriñ bi mooy di jiitu ci kàddu yi nga xam ne ñu ko wax di rafet nag eh, liggéey bi di soññoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg loolu ci seen loxo muy wàllu docteur yi dama ko waxoon ci poroxaan jël ci laa dim soir yàlla Moussa dégg ngeen ko eh, dafa wéri di woon romb genn garab garab ga wax ak moom ndax moom daana wax suñu borom kon ludul yàlla taxul may wax mu xamal ko ne ko boo ma baxee naan ma wér yonent yàlla Moussa jàll dem fu sukk fa suñu borom wéetal ko ñaan wér di yokkuwaat mu delluwaat ci yàlla ñaanaat suñu borom teg talaat ko ñax ga mu dem naan ko réer gi gën a yokkuwaat mu delluwaat ci boromam sukka sukkaat delluwaat ci suñ borom suñ borom ne ko ndax dëkk bi am na docteur bu fi amee nga dem seeti ko kon loolu ñu xam ne ñaan gi mooy li jiitu ndax loolu njuum ngëm la ci la ñuy dellu waaye li nga xam ne nag médecins yi ñu ngi koy santaane ci wàllu cet loolu nañ xam ne lislaam ko njëkk santaane bu ngeen gisee lislaam euh, waxtu juróom yépp day santaan yeesal njàpp lépp bëgg bu set la barab bi ngay jullee sax faw fa laab fu set la woon kon cet gi na ko ñëpp bàyyi xel ngir xam ne euh, wérdi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne firra minal majzumi firaaral asadi nee na wopp ji ñuy wax ngaana na ko daw ba mel ne kuy daw day de kon loolu ci waxoon ji laay fàttaliwaat neewoon na ko euh, nga xamee ne Sidna Omar seeti euh, armam bi nekk Cham ba muy bëgg dem yéeg na mbas xew na ci dëkk ba dafa diisoo saxaaba yi laaj leen ba xam lu ñu war a def ñu diisoo ñoom am ko génn benn xadis boo xam ne Sayyidatuna Aysa moo ko indi mu wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam na lu mel nii bu xewee ci dëkk bu mu fekk ci dëkk bu fa jógee bu fa kenn bàyyi koy dem fi nag ku mu fa fekk itam la fa dal na fa toog loolu boo koy seet ba léegi ni xam-xam weesoo loolu boo xooloon tey ci àdduna fi mu toll. ñu yëngu ci wàllu médecin nattuwaay yi ñuy wax loolu dara jiitu ko ci. tey adduna sépp yaa ngi dégg ba ci Màkka yéen ngeen a ombre ga fan yii tëj ko kon nag boo demee ci réew tubaab yi itam dégg ngeen di ci xew kon loolu itam ñu xam ne suñ borom mooy doxali noonu adduna kon ñoom itam nañ leen ci digg cër bi leen ci yàlla joxe itam ñu benn la mm. ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax. ndax yëg nañ buñ duggee ci réew mi tey ñëpp def nañ ko yitte ndax wéer di nañ xam ne jombul kenn jombut nit ku baax jombul nitu adduna ndax ci yooyu jamono Abu Ubayda moomu ba Seydina Omar wax ay jomb bañ wax ko ne ko na toog Abu Ubayda da ko wax na ko ndax dangay daw dogalub yàlla mun na ko damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla moom moom yàlla def na ca moom ci ci ci mbas la faatu Bilaal ibnu Rabaah ci mbas la faatu euh, Muaas ibnu Jabal ci mbas la faatu ñooñu ay saxaaba lañ te saxaaba kon xam na seen bari kon loolu jëmbul kenn Sëriñ Tuubaa wax na ci Jawharun Nafiis na is laysa ahadun maasuuman min al marad yàlla amul benn mbindeef moo xam ne musal na la ci jàng kon loolu natt la bu yàlla teg ñu ñu la ci war na kon li jiitu mooy dellu ci yàlla ñaan waaye nag sangu saahir si nga xam ne suñ doon doo ko santaane ndax Sëriñ Tuubaa mas wax ne yàlla wàccewu fi ay malaay ñuy lijjanti nit ay nit bu fi ay malaayka nekkoon ci suuf kon mu yebal fi ay malaayka ñu di liggéey qul law kaana fi l ardi malaayikatun yamshuuna mutma'inniina nazzalnaa alayhim mina s-samaa'i malakan rasuulaa walaw ja'alnaahu malakan la ja'alnaahu rajulan kon ay ay mbindeef la fi indi nag indi leen ci kaw suuf ngir ñuy lijjanti mbindeef bi moo tax mu santaane na atii'u llaaha wa atii'u rasuula ulil amri minkum ki la yilif ci wàllu adduna sax di sa kilifa lim la digal ak lim la da ko war topp ci loolu loolu lislaam ko kon loolu ñoom tam cër bañ ci am man leen ko jox te digg leen ci te ñëpp gën a wattandiku rek lépp loo xam ne euh, dana mën a tax jàngoro ji di wàlle lépp nag ñu delloo ko ci yàlla. nga xam ne suñu borom li ko tey waxtu waxee ne dana jeex rek dana tàggu di fàttali itam nag euh, Serigne euh, ñaan yi nga xam ne daal ko ci santaane ndax xasida wa aleykum salaam wa rahmatullahi فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من المكائد جميع الأعداء يا رب بالمصطفى المختار من مدر شفيع أمته في البدو والحدر وعليه يصلي بتسليم بلا عدد في الآل وصحبه وعصمنا من الضر إلى آخر قصيدة xasida googu na ko ñëpp mu war a Cheikh Maodo Moustapha sax santaane woon na ko démb ba jox ci ndigal bi nga nañ ko moom tasaare ko ñëpp di ko xasida ak Madabu Chifa yi xam ngeen ne Serigne Touba xam ngeen la taxul mu def ko booba euh, euh, soxna Fatou Issa wax ne ci saaxir sax moo doon taxaw sëñ bi moo tax Serigne Touba ñu ngi koy digal ñëpp ñu di ko jàng ngir yàlla musul ñi ci wér gi hmm. ba ca dolli ko waat mooy wakkaane xaqam bu ko xaq xam lu nit ñi dafa mas ca mu jël ci ki dugg fa am ku gént ñëw ci Serigne Touba ne ko dañoo yëg ne am na mbas mu dugg ci biir bi mu xewee nag dangaa tàlli fa xasee wakaan xaq bi ñu ko jàngee rek mbas ma tàggu nit Serigne Touba daal di génne ci biir génn xasee wakaan xaq muy biir mu taxit mbas ma tàggu dañ boole saw euh, bu saxee ak saw bu baax ndax lu caay dafa am inna makkanna lahu fil ardi wa aatinaa min kulli shay'in sabran fattaba'a sabra bokkatan abdan aataynaahu rahmatan min indinaa wa allamnaahu min ladunaa ilman kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di xam ne lii Cheikh Mouhamadou Moussa nag da ko doon ci. rasulullahi sallallahu dafa wax ci alquran yi li yunfiq su saati min saati man qudira alayhi risquhu fal yunfiq ma aatahu llah képp koo xam ne tànn nga sama moom dee ko dimbali kon lii itam nañ xam ne li ci jiitu mooy dimbalante ak àndandoo ñëpp nekk wenn say nekk wenn bokk benn bëgg-bëgg fexe ba tàggu moom ndax waroo fi ke dañuy wax ne soxla bu dee ñaar daa fekk ak wér nekk ndax fi mu àdduna ji boo ko doon seet xew-xew yëpp kenn talatu ko ñëpp ci lii lañ jëm ndax kat boo amut ndax euh, mbas wax nañ day jur jokkoo ci biirum réew loolu nag dogalu suñu borom la waaye li ci war doomu aadama ci gerte nga rek war na ko def seex ma xool mu taxaa nag euh, Sëriñ Tuubaa xam ngeen ni ci geeru 14 18 bi nga xamee dem na ba réewum France jaaxle ci ay soldaar bu tam am ci ndigalu borom ci ay saw yu xóot xóot ci de Serigne Touba joxewul ay soldaar bañ demee ba xaalisu France di bëgg daanu itam Serigne Touba dafay yëkkati ci jamono téeméeri junni muy xaalis bu bari nag ni ba xaalisu France daanu Cheikh Mahoudou Moustapha xam ngeen ni ca ñam jamonoon teeloon ba ñuy xëccoo mooy yëkkati xaalisam jox leen Cheikh Mouhamadou Fadil dégg ngeen histoire bi amul kenn. diggante Lamine Gueye si moom ba ñëwee di xëccoo dafay yëkkati xaalis jox leen Lamine Lamine Gueye jël si moom delloo xaalisam ne ko li may bëgg boo ko wutee dinaa leen jàppale ci seen jumaa ji. Cheikh Abdoul moom itam xam ngeen fu jamono masaara ak moom daana jënd ay camion yu ceeb ak dugub di ko séddale ci waxuma Tuubaa waaye ci biir yi ba mu ba ci kër gi nii kon loolu lu fekk Cheikh Abdoul Khadim Mbacké itam naka naka noonu la ko daan defee Cheikh Saliou Mbacké itam yéen a ngi fàttaliku Sonacos ba mu fi tàkkee xaalis bi mu yëkkati jox Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké itam ci xilaafam defoon na lu mel ba ci ki nag di ak Cheikh Sidi Moukhtar yàggut bi nga xam ne mbënd mi daj na Sénégal. mu yëkkati jéego bu rëy loolee itam la mu si jubluwoon rek mu yëkkati milliard ngir soññee ko nit ñi kon nag loolu sëriñ bi foofu lay wax ginnaaw boo xamee ne yëkkati na tàmbali ko daal ñu ngi ñëpp lépp lu ci waay mën a na ci loosu kenn donte ñoom sàkkuñ ko ci moom nag kilifa du toog di xaar bañ di ko wax waaye xam na ne ci Sénégal gépp ak njabootam mooy ñu ci doon taalibe Sëriñ Tuubaa ak ñi ci doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa ñëpp jabootam la ñëpp la jabootam bu sañoon ñëpp la jàmm kenn bañ a nekk ci fitna ndax wax na ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab wartale ko leen fitna ndax du ya li wolof di wax ay du yam ci boppam ku jàpp ne dañ ca mucc itam yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi ci waaye nag nañ xam ne du lu ñu daw ndax alam tara ila lazina xaraju min diirihim wa hum ulufun xasara al-mawt fa qaala lahum allahu muutu kon dee kenn mënu ko daw kenn mënu ko daw aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fii buruujin mushayyada bu fekkoon da ngaa tabaxoon ay xunt yu xóot suñu borom fekk na rek si biir xunt ma rey kon loolu lépp ay sabab la waaye li ci sababu saxir nag ginnaaw buñ delloo ci yàlla wakkiilu ci moom itam li ñuy wax tawakkul itam buñ ko def mooy yem yem loolu waaye lii sababu saa yi tam yàllaa ko santaane te bëgg àddina doxe noonu sëriñ Tuubaa leer loolu ci lu bari ci tax suñu doom tubaab yi mu dénk leen àdduna kon loolu itam nañ ko xamante ne kon ñu ngi nii ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla euh, nit ñi gën bàyyi xel gën a ngeen xam ne jàngoro ji jombut kenn kenn koo xam ne it mën ngaa gaaraat sa bopp ne dañ ci mucc itam amut yàlla képp ci mën musal kon nag dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sarax jéggoo te dimbu leen di suñ loolu mooy ndénkaane sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Mbacke. jërëjëf jërëjëf. alors kon euh, euh, mbokk yi euh, dégg nañ ko. Touba nag xalifa général comme porte parole du xalifa général des Mourides mu def déclaration wax rek sëñ bi ñaan comme a def. waaw tàllal leen amin amin amin Mbacke amin amin nga yàgg fi lool Serigne Mountakha yàgg fi lool kilifa diine yàgg fi lool barke sëñ Touba ñaan li sëriñ bi wax nañ ko dégg nañ ko jëf jërëjëf Mbacke amin amin amin Mbacke